asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV dal leen si jàmm si kër gi su defee ñu ànd ak yéen ci xibaaru bés bi ngeen ànd ak seen doom ne Omar Tunkara euh, xibaar yi ci euh, réew mi nag euh, si ponkel yi di ngeen dégg ne France maanaam France seen ambassade bi nekk fii ci biir Banjul ñoom nag ñooy yëgal ne lu toll si 2 millions euros yëkkati ko daal di koy dooleele Gambia pour nag ñu daal di koy sukkale seen koom-koom te jàpp ne lii nekkul njëlbeen yoon nag muy daal di am. Eh, benn tey mbokk yi ci musiba boobu daloon Gambian si duggoon ci gaal gi nag di wutale bitim réew foofu la cale di Mauritanie am na ñi nga xam ne muccoon nañ si te ñi si mucc daal jib si nañ si réew mi eh, ni ki démb te bañ ñëwee daal am na ñi nga xam ne teeru nañ leen waaye nag teeru bi nag dawoon na yaram lool am na ñu bari nga xam ne nag fekkee woon nañ ko waaye tamit nag jot nañ see waxtaan ak askan mi nga ne ñoom fa teew woon benn tey euh, jërëm bi dénk wàllum jàng ak njàngale mi di ministre of basic and secondary education si lekkalo bi euh, euh, boo xam ne nag ñu ngi koy jagle li nga xam ne nag moom mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi àdduna wërngal képp wane ne ñi seen seen àq ak seen yelleef mooy human rights loolu ko màggal si lekkalo bi nga am ne nag ñu ngi ko def ak Amnesty International benn tey Youth Council moom kii di Karim Wade bu aar moom nag moom mooy eh, ñaax ndaw yi eh, pour nag CRC bi mooy luwaay bees nga xam ni ñu ko defal ci réew mi nag dañ ko war a jël a ko seen bopp te xam ne daal eh, loolu nag dañ ci war a xam bu baax a baax parce que nag seen ëllëg nag si la nekk benn tey si xibaaru biti réew yi foofu la ca lii Cameroun Boko Haram nag rey fa lu si ñaar fukki ñaar téeméer juróom-ñaar fukk ak juróomi nit waaye nag tàqul nag nguuru Cameroun bi loolu ñu ngi ko doon dàqale di wane daal ba Boko Haram daanaka boo xoolee si tund bi nga xam ne nag ñu ngi wax ne ñu ngi foofu la ca Cameroun ñu ne ñoom nag jël fa waaye loolu nag ñoom ñu Amnesty International ñoom loolu dañ ko weddi di wane ne am nañu bari nga xam ne nag faatu nañ fa ñu bari tamit Soudan seen président bi woon di Omar al-Bashir fu mu toll nii ci réew Soudan euh, dañ ko oolu am nag laajte yi nga xam ne daf koy tontu parce que nag jàpp na ne dafa amoon loxo si coup d'état bi nga xam ne moom moo waral moom ci boppam mu daal di jël nguur gi nag si atum 1989 foofu la ca di réew Soudan mbokk yi yooyu ak yeneen xibaar dal na si dama su fañ koy dooree rek mooy France seen ñoom ñoo yëkkati lu toll si ko ne nag muy dox si diggante Gambia ak uh, lii di uh, France ndax France bokkoon nañ ci réew yi nga xam ne nag diggoon ne ñu uh, diggoon ne nag moom mooy biir réew ñu ànd dara cam ci report boobu finance minister Mame Boye Ndiaye mu doon ki nga xamante nag leen dënk kuréel guñ dënk wàllum lii di koom-koom bi fii ci biir réew mi moom nag daal di na lënkaloo ak nguuru France bi su ko defee ñi daal di seet naka la ñuy def pour jàppale wante loolu moo war a nekk France si jamono jun toll nii ci seen i mbootaay bu ñu xamee ci development agency loolu nag daal dinañu rek wax ne lu ko war rek mooy pour jàppale lii di Gambia ci seen blueprint ak tamit national development plan bi nga xamante nag daal dinañ ko rek teg ci taabul bi pour yóbbu lii di réew mi ci kanam. loolu moo waral nag France seen embassy bi ci boppam daal dina lëkkaloo waaye tamit nag am ndaje bi nga xamante nag am ne ko ak ñu yore wàllum koom-koom bi fii ci biir réew mi su ko defee ñi daal déggoo waaye itam si déggoo boobu daal di ñu rek saynaale euh, lu toll ci two million euros yi nga xamante nag France daal di nañ ko rek ekkati euh, teg ko ci loxo nguurum Gambia su ko defee ñu daal di ci dooleel ci sañuy dépense bi nga xamante nag euh, tàmbale neen di ko daal di war a mun a seet la ñuy def pour tëddal ko fii ci biir réew mi lii nag nekkut ñël benn yoon France nag si ab ndaje boo xam ne amoon neen ko foofu noonu ca Bruxelles ci atum ak atum 2018 di woon neen wax ne daal ñoom dineen def seen kémti laay kàttan pour jàppale lii Gambia ci seen national development plan bi wax ne ni tamit nag ekkati woon neen lu toll ci 5 millions euros eh, teg ko ci loxo ñi nga xamante nag eh, ñooy eh, lii di Gambia su ko defee ñi daal di ci dooleel ñoom nag wax neen ne daal di neen continuer di rataxal sañuy diggante ak naka la ñuy def pour gën a dooleel sañi bopp ak tamit linkaloo rataxal diggante Gambia ak France ci lépp loo xam ne rek ñu ngi ci yëngatoo Dado Cham Star mbokk yi ñu sant ak gërëm daado caam ci report boobu su ko defee ñu dem seeti ji rek leneen lu ñuy seeti naka mooy lu daw yaram maanaam euh, ndaw yi nga xam ne dañoo duggoon ci gaal gi di wutali bitim réew ñoom nag ñi nga xam ne dañoo ah, am na ñenn ñi nga xam ne dañoo desoon ci géej gi maanaam dañoo faatu woon waaye ñi nga xam ne dañ si mucc ñoom nag da jot nañoo dellusiwaat foofu la tali baara si altine bi eh, ci bëccëg gannaaw bi ñëwee nag wane ne daal eh, teru nañ la nag si anam bu eh, daw yaram ndaxte nag wane ne monsieur boobu boobu nga xam ne nag na gàmmen si lu ëpp juróom benn nit fukki nit nag ñoom ñoo si daal di ñàkk seen bakkan am ñu bari nga xam ne dañoo réer si biir géej gi ñu dem ànd ak dara ci am benn tey ci report boobu ndaw yi lee jàppoon yooni gannaaw bi pour egg foofa ca bitim réew daal dinañu rek wax ne egsi neen fii ci biir réew mi gannaaw bi nga xamante nag ñenn si ñoom nen far ñàkkoon sañi bekken ci yoon bi ci géeji Murtani bi gannaaw bi nga xamante nag seen gaal bi ci boppam moo daal di woon këppu ndaw yi nga xamante nag ñoom mucc si accident booba daal di dellu si waat fii ci biir réew mi niki lundi daal di nañu rek dellu ci fi nga xamante nag mooy seen i njaboot baada nag doon na béréb boo xam ne ndaw yu bëri ñoo xam ne ñoo ngi woon ca gaal ba foofu leen fàqee ba war a nag daal dinañu rek wax ne ni ki Londi dem neen foofu noonu fi nga xamante nag mooy Barra police station su ko defee ñi daal di delloo ñi nga xamante nag ñooy ndaw yooyu seeni njaboot. ci bés boobu nag lii di bi dafa daal di woon egg foofa ca Barra police station fekk na fa ay nit ñu bëri taxaw di xaar seeni njaboot waaye itam rawatina seeni doom yi nga xamante nag ñoo mucc si gaal booba. wax ne ne nag ñu bari ci ñoom dañ ñëwoon rek pour daal di xam lu leer ndax ñoom seen doom ñàkk neen seeni ba kenn am déet. loolu waral nag ñu bëri ci ñoom daal di woon neen dem foofa ca Barra police station pour rekk daal di seet ndax seen doom mucc na gannaaw bi nga xamante nag ñu bëri xaar neen ba sonn ñenn yi sax gisuñ leen lu ko waral rek mooy ñenn yi den daal di wàcc si boos bi daal di doxal sañu bopp egg si sañuy tund wax ne ne nag loolu lu ko waral rek mooy ñoom den wax ne den rusa sax dem foofa ca Barra police station di gis ay nit ñu bëri ci jamono juñ toll nii nag daal ñu rek wax ne daal dinañ dellu si seen i njaboot su ko defee ñi daal di seet naka la ñuy def pour jàppale leen ak tamit dooleel leen fii ci biir réew mi Dado Thiam Star moo koy ben tey ministry of basic and secondary education jërëm bi ñu dénk wàllum jàng mi ci réew mi eh, ci l'école bi nga xam ne ñu ko def Amnesty International mooy kuréel gi eh, eh, ñoom na ci talaata bi ñoom ñoo daal di màggal bés boo xam ne dañ ko jël daal di koy jagleel ak ak yelef doomu adama di International Human Rights Day wane nag thème bi nag ren moom mooy pour taxaw nit ñi seen ak ak seen yelef te bii yoon mooy juróom-ñaari fukk ak benn yoon nag ñu ngi koy màggal nag àdduna wërngal képp ñu ànd ak Ministry of Basic and Secondary Education ñoom ñoo lëkkaloog Amnesty International bu nekk foofa ca Sénégal niki talaata ñu daal di màggal lu toll ci juróom-benn ak benn ci li di World Human Rights Day mu di bés buñ jagleel àq ak yelleefu doomu aadama bi ci àdduna wërngël képp ci ndaje boobu nag ajaratu Tida Jaata Jaaju gaarale na ay kàddoom moom mi nga xamante ne moo nekk programme directeur bi foofale ca MOPSI moo di ministry of basic and secondary education muy xamle ne nag ministry of basic and secondary education ñu ngi béy seen wàll ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ci bérébu jàngukaay yi mu ne nag loolu moo waral ñu daal di jiite dooleel bii nga xamante ne ñu ngi koy dooleel juróom benn tund yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci biir réew mi ci wàllum njàngameeg njàngale mi lëkkaloo ko nag ak Amnesty International Sénégal tey tamit ñu ngi leen di dooleel bu baax a baax ci mbir moomu Mrs Diadio nag wéyale ay kàddoom di xamle ne nu mel ci bérébu jàngukaay yi pour feesal ak yelleefu doomu aadama lim laaj bari na laaj na lu jëm ci wàllub respect laaj na lu jëm ci wàllub ñàkk a tuutiloo nit ñi lu jëm ci wàllu yemale ñëpp lu jëm ci wàllu fonk nit ñi lu jëm ci wàllu boole ñëpp ci lépp lu ñuy def ci bérébu jàngukaay yooyu. mu ne loolu bu amee nag dina dimbale ndaw yi muy di ndongo daara yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bérébu jàngukaay yooyu ba sax xamal leen bu fekkee ne yàq nañ lu xeetoog seen àq ak seen yelleef fa mu ne lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ci bérébu jàngukaay yi emul rekk ci classroom yi nga xamante rek mu ngi ci biir daara yooyu waaye nag bokk na ci tamit ñu génn ci mbedd yi di waxtaan ak askan wi ñu gën koo ràññee ci sensitisation xamal leen lan moo nekk ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama pour ñu mun koo xam bu baax a baax. Sally Colley teacher coordinator moom itamit gaarale ne ay kàddoom di xamle ne lii di friendly school project bu am solo la waral na sax ñoom teacher yi. féete ci wàllum njàngale mi dañ xam naka la ñuy jëflantee ak ndaw yu féete ci wàllum njàng mi mu di ndongo daara yi ba looloo waral nag bu fekkee ne def nañ naka surut noonu duñ leen dee faral di dóor waaye am na fi ñuy jaar ak ñoom pour xamal leen ne lii ñu def baaxut ci biir school yooyu mu ne loolu sax dina jàppale ndaw yi mu di ndongo daara yi pour ñu xam nu ñu jëflantee ak seen problème yu ñuy am fii ci biir réew mi Aissatou Graham Solicitor General Ministry of Justice moom it gaarale ne ay kàddoom ci ndaje nguur gi ràññee nañ juróom benn tund yi nga xamante ne rek am nañ ko fii ci biir réew mi eh, ci wàllu njàngameek njàngale mi ci ràññee bi nga xamante ràññee nañ ko ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama yi rawatina ndaw yi jàngee ci bérébu jàngukaay yooyu mu ne nguur gi nag dinañ def seen kéemtalaay kàttan pour gis ne dinañ aar àq ak yelleefu doomu aadama yi rawatina ndaw yi réew mi Mr Lamine Fati director Child Protection Alliance moom it gaaral na ay kàddoom di xamle ne lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama warta doon lu bees ci askan wi li ko waral mooy boo demee ci arxuraan bi ak ci bible bi ñu ngi ko fa tënk mu ne warugal nguur gi rek pour ñu fexe ba gis ne dañuy sàmb àq ak yelleefu doomu aadama yi nekk fii ci biir réew mi Seydou Camara Star TV News

waaye bees nga xam ne ñu ngi koy defal nag fii ci biir réew mi daara cam la ñoo àndal ci report boobu mu ànd si yaatal CRC mu doon ab mbootaay boo xam ne daal di ñuy ko rek tenk fii ci biir réew mi pour ñu gestuwaat lii di constitution bi maanaam mu doon luwaamum réew mi fii ci biir réew mi ñoom nag gannaaw bi nga xamante nag daal di nañu rek def ay gestu ak ay soppite si constitution bi daal di nañu tàmbalewaat nationwide consultation maanaam pour waxtaan ak askan bi rawatina nag ci ay tund naka la ñuy def waaye tamit nag wax kàddu yi nga xamante nag bugga neen ko gaaral ci constitution bu ees bilee lee si seen i mbootaay nag wax ne ne buñ demee ci ay tund kilifa yi rek ñoo dee daal di teew si yi ndaje loolu waral nag wax ne ne ndaw yu bëri dundee daal di teew ci CRC ndaje ba yooyu noonu loolu tamit nag waral na seen commission bi Manjang daal na rek wax ne daal eh, li nga xamante nag ñooy ndaw yi foog ñu dugal seeni loxo ci constitution bu ees bi ndaxte nag ñoom ci si leen bokk Karim Waye daabo moom yu nekk youth councilor foofa ca LRR nekk di yëngatu ci wàllum tëddini ndaw yi wax na ne daal fi nga xamante nag mooy sooma ne kàddu yi nga xamante nag lii di constitution bi wax na ko te lii di ndaw yi foog ñu sànni ci itamit sañuy kàddu foog ñoom itamit ñi def seen kéemtalaay kàttan sànni ko si loolu moo war nag daal di na sax wax ne li ñuy wax ne présidence bi maanaam koo xam ne dafa bëgg a nekk président fii ci biir réew mi foog nga am lu toll si ñeent fukki at mu ne loolu nekk na loo xam ne ndaw yi foog ñu sànni si seen i kàddu ndaxte nag dañ waxoon ne fanweeri at nga war a am pour nga doon président fii ci biir réew mi kon nag suñ ko demee ba yokka ne léegi ñeent fukki at nga war a am nga doon fii ci biir réew mi kon nag ndaw yi foog ñi sànni si seen i kàddu ñoom itamit ñu wax lan lañ si xalaat suñ demee ba constitution bi wax ne ñeent fukki at nga war am kon nag loolu war na ñoo wax ne daal ndaw yi ñoo sàgganee ba loolu am fii ci biir réew mi moom Dabo nag daal dina wax ne daal mu ngee ñaax ñii di ndaw yi ñu dugal seeni loxo ak tamit sañuy kàddu ci lii di CRC bile Dado Thiam Star TV. mbokk yi sant gërëm Dado Thiam ci report boobu su ko defee ñu dem seeti ji sunu mujjëndeel xibaar ci réew mi rek dem seeti ji ñi nga xam ne nag ñoom ñooy néew doole ci réew mi rawatina rek ñi am xam ne dañoo desedi am ñeneen ñoom ñi nga xam dañuy dégg ñoom nag ñoo wane seen i mbégte ak seen i kontaante Eh, ci CRC bi maanaam constitutional review commission bi eh, si liggéey bi nga xam ne def nañ ko waaye tamit sóoraale leen waale ci loi yu bees yi nga xam ne naka ñu ngi koy defoon na fii ci biiram parce que ñoom it ko boole nañ na fii ci biiram ñu ànd ak Seydou ci report boobu mu ne yu si réew yi jaajëfal nañ constitutional review commission bi ci dugal bi nga xamante rek moom lañ dugal lu loi buy dooleel mandarga bi nga xamante rek si la ñuy jokkalante fii ci biir réew mi constitutional review commission bi nag gannaaw bu ñu leen sasee pour ñu def ab gestu waaye tamit bind téere boo xamante rek moom la ñuy wéyee fii ci biir réew mi mu di draft constitution bi delluwaat nañ ci askan wi diisoog ñoom seet lan moo si nekk seen i xalaat gannaaw bu ñu demee nag ci ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk laago yi silmaxa yi ak mumune yi fii ci biir réew mu di disabilities people yi ñoom nag gaarale nañ seen i mbégte ak kontaante ci constitutional review commission bi ci jamono joo xamante ni Gambia gën cee bari ci askan wi nag dañ dee dumuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk laago yeeg silmaxa yi ak mumune yi waaye constitutional review commission bi wane na neneen lu uteeg doonu. Jason Camara gaarale na ay kàddoom ci kanamu CRC bi si njiitalu Lamine Sonko mi nga xamante ne moom moo dee tekki màndarga yi nga xamante ne moom la ñuy jokkalante fii ci bureau mi nekk ci CRC bi foofa nag wane na mbégte ak kontaanteem ci constitutional review commission bi ci jamono joo xamante ne ni dugal nañ luwaa buy dooleel seeni màndarga yi nga xamante ne moom la ñuy jokkalantee fii ci biir réew mi mu ne lii nag waral na moom kii di Jason kamara jamono ji gom na dëggantaan ne moom Gambien la mu ne am na jamono joo xamante ne rek demoon na ci loppitaan bi bi mu fa demee nag dafa demoon uti garab waaye tamit sàkku ndimbal ci feebar bi nga xamante ne rek mu ngi ko doon gétteen docteur bu fa nekkoon nag daf ko wax pour mu daal di néggandeku mu ne lu waral docteur bi wax ko mu néggandeku nag mooy moom mu mu ne la te docteur bi mënut a wax ak moom mu ne waaye bu fekkoon ne am nañ nit ki nga xamante ne rek dafay xam ñoom seen mandarga yi mun a waxtaan ak ñoom ci loppitaan yi fii ci biir réew mi ni kon jafe-jafe boobu du ko doon am te ñu bari ci ay naataangoom nag duñ am jafe-jafe yu nu mel fii ci biir réew mi Bakary Seydi Ba moom itamit moomu ne la gaarale na ay kàddam nag di gën a wiral kàddu yi jaason Camara wiral ci kanamu CRC bi muy wane ne tamit CRC bi war nañoo indi ay luwaay yi nga xamante ne dafay dooleel nguur gi wala boog sas nguur gi pour ñu am bérébu jàngukaay yi nga xamante ne dañ koy jagleel moomu ne yi fii ci biir réew mi loola nag bu duggee ci constitution bi dafay nekk loo xamante ne warugal la te nguur gi dañ ko war a matal rawatina ñoom ñi nekkee foofa ca diwaanub jaara Soma Seydou Camara Star TV News. boo koy ñu sant ak gërëm Seydou Thiaw Seydou Camara ci euh, report boobu rek euh, ci mujjanteli xibaar bi ci réew mi ñu dem seeti ji. Euh, xibaaru bitim réew yi fañ koy tàmbalee nag mooy foofu la ca Cameroun foo xam ne Boko Haram daanaka rey nañ fa lu tollu euh, lu ëpp si ñaari téeméer juróom-ñaari fukk ak juróomi nit euh, ci benn tund bu nekk foofu la ca réew di Cameroun waaye taxul nag ci weeru janvier nguuru Cameroun bi nag dañoo dàqal woon loola di wane ne Cameroun nag ne Boko Haram nag daanaka jeex fa si béréb boo xam ne nag dañ doon wane ne Boko Haram ñu fa ñu ne ñoom nag loolu jeex nañ fa waaye nag kuréel gi ñu ooyee Amnesty International lu ëpp nag bu dee téeméer la lu ëpp juróom-ñaari nit ñi dëkkee foofu la ca lii di euh, euh, lii di Cameroun ko novembre ñoo ñàkk seen bakkan nag ci place booba wane nag maanaam kuréel gi kuréel yi nga xam ne dañuy seetu ak ñoom na euh, ñaari semaine yi mission bi nga ne nag ngi ko doon def dox nag ci place booba ñu dëkk foofu la bi ñu ne nag ñoom si tiitaange ab tiitaange lañ fa dëkkee parce que nag ñu ne daanaka boo ko xaram daal foofu la gaay gën a amee doole am na am na euh, lu ëpp doole si ñoom nag nga xam ne euh, daanaka toxu nañ wala boog euh, dekkatuñ ci ñu ko dee faral di def foofu la ca lii di Cameroun nag comme ni nga wane nag lii di Boko Haram mu ngi dooree foofu la ca Nigeria waaye Nigeria boo xool xoolee am na nag frontière yi nga xam ne dafa dox ci digganteem ak dëkk yu mel ni Tchad ak Niger loolu moo waral nag ba Boko Haram eh, ko file nag Boko Haram lu ëpp nag ñetti téeméer ci ay ndaw ñi nga xam ne nag ay taalibe la ñu doon jàng nak ci yenn daara ay xale jigéen nag la Boko Haram jàppoon ëpp doole si ndaw yi nag dañ leen mujjoon a bàyyi waaye gannaaw bu loolu xewee am na ñu bari nga xam tamit ñi di Boko Haram dañoo jàppoon gars yi kidnapp leen nag foofale ca réew di di eh,

ne balaa loolu mu xew daal am na nag fintax bu bëri bi nga amoon foofu la ca am na ñu bëri tamit nga xam ne ñàkkoon seen bakkan si ñaxtu yi nga xam ne nag ñu ko doon def foofu la si jamonoy nguuram moom ki di Omar al Bashir Bachir nag si nga xam ne nag ñu ngi bi mu ne atte bi nga xam ne nag ñu ngi ko def daal mu ne ne euh, lii nag mu ngi xewoon si fanweeri euh, euh, am na yu bëri nga xam ne xew na si diggante bi am na lu bëri tamit li nga xam ne na si le kon nag mu ne ñoom waxtaanee ak président Al Bashir te kooku li mu leen wax mooy ne bu ñu waxtaan ak comité bi nga ay mbiram nag foofu la di di Soudan na ne daal am na lu na si investigation ci ay mbiram international criminal court bi mooy bërëbu attukaay bu mag bi na ci bi nekk foofu la ca réew Switzerland ñoom ab diggee mooy diggante 2009 ba jàpp ko 2010 ah, pour crimes nga ne daf ko daf ko tegoon ah, ah, nit ñi yow foofu la ca di waaye tamit nag ñu bëri nag daal see ñàkk seen bakkan nag comme ni ñu ko war a léegi moo koy sunu mu jëndale xibaar si bitim réew la ñuy seeti rek mooy dañuy dem seeti ji euh, benn newspaper bi nekk foofule sa euh, moom kii di Buhari na moom euh, ko teggi nag ci kaw turab bi nga xam moom président Buhari nag moom léegi daal commencé na di jaay nit ñi doole waaye tamit nag mu ngi ko nit ñi nag di leen ne dogal ne ne daal fan yi léegi moom di Buhari nguuram bi dañoo bëgg a not askan bi yeewoo foofule ca lii di uh, Nigeria rawatina uh, taskati xibaar yi waaye tamit nag di leen jaay doole fan yi leen daal gis nañ ne dafa am benn taskati xibaar koo xam ne kooku activiste la dafay faral di taxaw nit ñi waaye tamit nag politicien la kooku nag dañ ko arrest waaye nag ar ah, si anam muñ ko arresté dafa ñaaw lool ci weeru auguste lañ ko defoon kooku nag daf doon oote li nga xam ne nag moom moo di di uh, révolution boobu ba léegi nag gis nañ ne Buhari daal lu mu nekk di doxalee réew mi ñoom jàpp na ne nag dafa nekk di jaay doole nit ñi waaye tamit nag dafa bëgg a not nit ñi moom moo tax léegi ñu ne moom amewut nguur de waaye nag régime la amee te régime bi nag lu mu ko nekk di doxalee ne tactique la ko ko nekk di doxalee di nga xam ne nag moom mooy soldat ñi doole nag foofu sa léegi Nigeria moom moo tax daal léegi ooyetuñ ko président Buhari waaye nag Mohamed Buhari général Mohamed Buhari lañ koy ooyee parce que moom mosoon naa nekk kon nag turam boobu lañ koy ooyee parce que tactique boobu la nekk di daanoo eh, si kon nit ñi eh, foofu sa léegi eh, Nigeria mbokk yi loolu moo nekkoon moo nekk si caméra bi ñi ma ko moo nekk si machine bi Sara